wego kenen ko ne sañ-sañ ne man mëna laaj xam nga président sañ-sañ. Ah, ma xam nga man euh, la 2012 def na ma troisième candidature bi nga mom lañu la bëgg deuxième quinquennat comme troisième candidature comme comme troisième candidature Comme troisième candidature de ah, troisième candidature la décision du conseil constitutionnel xam nga président Macky Sall dafa bindoon lettre le 14 janvier 2016. loolu moom dégg nañ conseil constitutionnel. loolu dégg nañ ko laaj ko. Mhm. ndax moom mandat moom bii nga xam ne mooy sept ans. Mhm. ndax dinañ ko jël dañ ko jël en compte ci révision bi ñu jëm. ñu ne ko déedéet. conseil constitutionnel tontu ko ne ko sa mandat bi nga bëgg a wàññi sept ans indi ko cinq ans. Mhm. bokku ci. ma ñëw bàyyi ma di nga di nga jël parole. Ah. bokku ci. Ah. c'est conseil da ko beaucoup ci la ko d'accord d'accord xam nga kon loolu kon juridiquement la cadre du président Macky Sall juridiquement jàpp elle est résolue non non non dafa nekk que l'on ne à bas de sa parole d'accord d'après nañu ne loolu moom féete le mhm. conseil constitutionnel bu sous président euh, euh, la candidature am l'amour la en 2016 nous loolu la ñu tënku ñu président Amna sur la valeur juridique Vous may rappelé le président Abdoulaye Wade bañu waxé né mom euh, dafa wax dafa joxe le conseil constitutionnel def né conviction Abdoulaye Wade ça n'a rien à voir avec droit ce n'est pas du source de droit du lo xamné c'est réglementaire du lo xamné c'est législatif xam vous deux points non, le président Macky Sall a na sañ pour déposer votre candidature pour deuxième quinquennat boobu parce que nag dañ naan euh, kaddu euh, damay jàpp toujours ne kaddu charte nday réew mi moo moo moo jiitu kaddu. Mhm. moo sut kaddu. xam nga euh, damay dégg sama benn kii di ko wax sama benn camarade de promotion da koy faral en communication éthique de responsabilité éthique de conviction président Macky Sall amoon na éthique de conviction boobu éthique de responsabilité bi nag mooy que ne dafa am responsabilité ci réew dafa am responsabilité ci sénégalais parce que mom tamit momul boppam. kon donc nak euh sang batay mako koy ma bëggoon l'air lolu que ne juridiquement président Macky Sall am droit def li nga xamné moy deuxième quinquennat bi. Mhm. wala troisième candidature ça veut dire que ne sept ans bi nga xamné mom la conseil constitutionnel wàññi ko indi ko cinq ans comme ça mandat bi ñu ko jël en compte le conseil constitutionnel avait refusé daf na ko mënul sa mandat bi nga xam ne moom nga njëkk a def. dégg nañ li nga wax bokk ci. dama bëgg mu leer. Sénégalais yi moom la ko wax. loolu la conseil constitutionnel wax mais moom après lan maa ngi ñëw. moom après moom lan la wax. waaw d' accord dégg dégg léegi ma bàyyi ma ñëw ma daaneel si benn point. <laughs> xam nga tey jii moom Euh, sénégalais japonais ne dafa choix de la continuité. ndax kat ñu gis ñun fi nek ci réew dañu a li nga ne république. la li nga moy démocratie mais également tamit euh, restaurer wat valeurs yi nga religieux yi est que nous que ko tamit. ok merci pour le président Macky d'accord merci beaucoup alors euh, Abba est-ce que nous lu ñuy le président Macky